salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziara di leen jox seen wàcc waay ya. eh, di leen xamal ni ñoo ngi fii ci eh, ci journée culturelle si Abou Mouhamed Kounta ñi ko taxawal mu di waa APRES ñi koy amalee nag ci ndigalu xalifa bu tedd bi seexal bekkaay bekkaay ibnu seexal bekkaay moom it di ko ñaanal sunu borom guddal fana mu yàgg fi loolu te wër ak ci ndigalu si Sidil Maxtaar Kounta ibnu Cheikh Abou Mouhamed Kounta ah, jamono yi nag waa après e yëpp ñoo ngi fii teew mbokk yi ne ci wàccaay bi ngir bis bi ñu daal di koy amal ci ni nga xamante ni noonu la gën a rafetee bu ko defee mbokki julite ak mbokki taay bi ñu ngi leen di xaarandi ci kanam incha allahu rabbi ngeen ñëw ñu daal di àndandoo APRS بي دي زون نيكلترال سي أبو محمد كونتا والسلام عليكم ورحمة الله